am solo ma bëgg rek yéen sénégalais yi ngeen xam ne yéenay Sénégal yéenay identité Sénégal yéenay héritier wu combattant yu mag yi nga xamee ni Sénégal mos na ko am vous êtes les héritiers de Thierno Souleymane Baal vous êtes les héritiers de El Hadj Oumar Foutiyou Tall vous êtes les héritiers de Cheikh Sidi Hadj Malick vous êtes les héritiers de Maulana Cheikh Ibrahim Vous êtes des héritiers de, de Cheikh Ahmadou ibn Mohamed ibn Habiballah Khadimu Rasoul yéen yéenay ndonay jàmbaar yooyu nga xamee ni ñoo téye senegal ñoo tax lu baax am ci réew mi kon doom bu fi juddu lépp loo xamee ni combat la pour redonner la dignité des histoires glorieuses que nous partageons ensemble moo tax vous aussi et aujourd'hui plus que hier il y a dix ans vous êtes les héritiers du combat du 23 juin 2011 et vous êtes les héritiers de tous les combats démocratiques yi nga xamee ne am na ci Sénégal li am solo du kañ nga tàmbali xeex li am solo mooy ndax tey jii yaa ngi ci xeex bi walla nekkaloo ci xeex bi boo ci nekkoon dix ans te tey nekkaloo ci yow traître nga yow tu as trahi la nation tu as trahi ton idéal et tu as trahi le combat de du 23 juin 2011 xam leen ni nag 2011 ñun ak yéen ñoo jogoon taxaw xare pour am lii il est malheureux que ans après ñu war a xeexaat même xeex bi c'est pourquoi képp koo xamee ne ànd nga ak Macky Sall ànd nga ak Benno Bokk Yaakaar mën nañu wax assurément tu fais partie de l'association des malfaiteurs et tu fais partie des escrocs yi nga xamee ni la politique sénégalaise moom la sécrété durant les dix dernières années parce que loxo du tàmm gudd ba pare bëgg gàtt te qui peut le plus peut le moins ku xeexoon il y a dix ans de cela war nga xool say doom war nga xool Sénégal war nga xool pauvreté bi fi nekk war nga xool chômage bi di professer l'exact contraire du combat de 2011 tey jii yéen yéen a yore flambeau bi yéen a war a gën a jóg taxaw yéen a am fulla yéen ay réew mi yéen ay Sénégal parce que vous êtes le présent et le futur de ce pays par conséquent ñeneen ñi c'est le passé et le passé le plus éloigné le passé qui nous relègue à l'âge de la pierre fracassée li ñu soxla tey mooy développement li ñu soxla tey mooy emploi soxla tey mooy santé te loolu ñu ngi koy am si on enlève ces gens du pouvoir parce que tamit geenu fas ma ni geenu fas bu ko sangalulee awraam dàqalu ko weñ takk sànni moo si gën jërë ngeen